رسول الله الكريم سلمنا على صراط asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñiy seetaan Murid TV ci réew mi ak bitim réew boo leen gisee nag nataal bi ne ci suñu ginnaaw muy jumaa ju tedd ji ngeen xam ne ñoo ngi ci dëkk bu tedd bi di di Touba mel nag Touba nekk la dëkk boo xamante ni ba ko Serigne Touba Cheikhul Khadim di sanc diine rek moo taxan ak islam yaatal diine ak yaatal islam rek moo taxoon jàng ak jàngale waaye dëkkub bu aar waaye dëkkub feggu waaye dëkkub jàmm mel ni ñu ngi dëgmal ay référendum di yoo xamante ni dañuy laaj askan wi ci loo xamante nii dañuy wax waaw wala déet ñi nga xam ne ni nag ñoo nekk ci bopp réew mi di parti au pouvoir indi ay tomb yoo xam ne nii dafa ñeel ay soppet ci li nga xam ne ni moo di charte mi di constitution bi loolu nag nekk loo xamante ne nii ñu bëree bëri wute nañ ci gis-gis ñoom nag ñu teg ci seen bakkan ne woy googu dina jàll waaw maanaam dina jàll ñeneen ñi teg ci seen bakkan ne waaw du jàll ñi nga xam ne nii dañ ne déet ñaari anam moo tax ñu ne déet ñenn ñi dañ koy def ngir politique bi waaye ñeneen ñi dañoo jàpp ne ci tomb yooyu am na ay tomb yoo xam ne nii dafa euh, bokk dafa nekk loo xamante ni baaxul ci dina ji waaye baaxul ci askan wi loolu moo tax ñu teg seen non waaw wala déet nag nekk loo xam ne nii moo taxaw ci suñu kanam loolu tax na nag ñu lancé woon ay campagne électorale jëm ci référendum yi waaye campagne yi bi mu dooree ak léegi toll ci ayu bis fi ak ñaari fan mu war a jeex ñu gis ne fitna yi ñu ngi yokk ci réew mi rawatina nag dëkk bu tedd bi di Touba ndax képp kuy déglu média yi xam nga ne démb rek am na ay jàppante yu am ci diggante ñi nga xam ne dañ naan waaw ak ñi ne xam ne dañ naan déet ñu bëgg laaj nag benn laaj ndax Touba bi ko Serigne Touba Cheikhul Khadim di sanc ndax yu mel ni moo taxan ndax fitna moo taxan wala déet bañ na ko ba ki nga xam ne ni moo fi mujj a toog ci njabootuk Serigne Touba di Cheikh Saliou Mbacké saa su nekk daawul dañ di aay lépp luy yëngu-yëngu rawatina politique ki ko fa wuute di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara noonu ba ci si Sidi Mokhtar mi noonu waaye mu mel ni gis nañ ne ñenn ci mbokki politiciens yi ñu ngi bëgg a xotti ormay Touba jooju def lépp loo xamante ni Serigne Touba bëgg ko ci dëkk bi ba yëkkati ay kaddu yu ñaaw ba yëkkati sax ay bali fetal yoo xamante ni dégg nañ ko ci dëkk bi loolu nag ndax jotul kilifa yi nga xam ne ñoo saytu tubaa wax ci ndax jotul taalibe yi nga xam ne ñoog ñoom ñoo bokk Touba wax ci ak lan mooy solution bi ba ñu gën a delloo war ma Touba gën xam ne Touba dëkk bu tedd bi ba ko Serigne di sanc politique taxut caaxaan taxut waaye leen rek a taxoon muy diine kon duñ def lu dem ca bërëb ba nga xam ne foofa la fitna ji amoon muy 28 waaye dem ci yeneen bërëb yu mel ni marché Ocass nga xam ne fa la askan wi daje ñu laaj leen seen xalaat ci loolu lan moo tax politiciens yi bëgg a xotti war may Touba ndax jotut kilifa yi wax ci. kilifa yi moom moom ñoo ñuy war a wax waaye ñun taalibe ne ca ndax dañoo gàddaay suñu kër ndey ak suñu kër baay ñoo fekk leen seen dëkk maam ak seen dëkk baay kon lii war mooy li ñu digal ñu ne li ñu tere duñ ko jege sax ba koy laal man man moom ak taalibe dong laa ci dëkk bi waaw loolu daal laay laay wax sama mbokku taalibe. mën naa wax rek nit ku amul kilifa rek la ku am kilifa ku ne bu borom dëkk bi tere dañ si war a ànd waaye nag bu amul kilifa dinne yi loolu laa gis te dëkk bi la dëkk diine la loolu la fi sant borom yi moom la bëgg si biir dëkk ku si dund ku ne di si wéy ay si ndigalam doo bëgg di wax suñu fas naa yéene it buñ yeggee li ñu santaane ci wote bi nga xam ni doomi réew mu nekk te juddoo ci réew am nga ci sañ-sañ boo ci yeggee lu la soob nga seet ku la doy nga dem ko ndax ki ma doy mën naa bañ a doy sëñ bi ki doy sëñ bi mën na maa bañ a doy loolu sama sëriñ ma ko waxoon sëñam sëtu Mbàkke bu daal moo tax ma sañ di ko wax ñu ma woote de saa yu jotee fu la soob sañ nga faa woote ndax muudu ki la doy mën na laa mën na maa bañ a doy man xam sut waaye ki ma ki ma doy man xam sut mën na laa bañ a doy ñoo leen ko may gone yi bëgg àdduna ñoo leen ko may waaye buñ jaaroon fi seeni baay jaar seen i maam jaar fa duñ am sañ du dugg suñu waxoon na ne nu keroog saay-saay bi dugg ci dëkk bi ñaa ñi ci biir ñag bi ñoo leen di ñàggal ñag bi bañ dugg ci biir dëkk bi ñoom ñoo ñàgg ñag bi bañ dugg ci biir dëkk bi waaw loolu la nu ko waxoon ci li bëgg wax mooy sallallahu alayhi wa bi ko suñ borom yónnee dañu ko wala tam nun tastakthir ni ko jox naa la lu am solo loo xam ni dara tollul ni moom te mooy lim indil jullit ñi mu ko waaye nak lolu bu ko ak adina manam bul ni julinn ñi ma leen defal li kon féete leen ma fi sunu borom musa nangul lol kon day yar yo xani ne waruñu waruñoo jàkkaarloo loolu xam nga ni sallallahu alaihi wasallam bu fekkon tani lim andil julinn ñi dañ ko ko fayé ci wetuk adina. kon du xif du mar buy génn ci adina du fi bàyyi ay tayle wala ay bor waye ku ne xam na ni adina ñak ko taxa jóg ak ñu ni ko bul wéccé li nga andi ak addina moo waral aw dundinu adinam bindo won nonu ba suñ borom sax mujju di wax wa këram leena leen nekk gi de bu metté ka ñu jéggel leen ngeen dem in kuntunna تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأصرحكن umatti'kunna wa كن أدنا jamila kon addina ak boo demee ci ci kashful ghumma an jamiil uma wax na ni sunu maam Adama sunu borom jàngal na ko junni métier ni ko nag lu mu ci jublu mooy junniy métier yi jaar ci ngir faggu addina te baal ma fi sama diine waaye diine bu ko faggu addina lool lépp ay junj la yoo xam ni defe naa ne manees naa xam li ma bëgg a wax bu weesoo loolu nag ñi yàlla sédd ay cër ci sëriñ bi nañ tëye loola te bañ koo jàkkaarloo ak la ca ndax Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dana wax naan ijtanibu abwaabal muluk dee leen moytu bunti buur yi fa innakum la tusibuuna min dunyahum shay'an illa asaabu min axirati illa asaabu bi axiratikum ma huwa afdal minhu dañu woon moytu leen bunti buur yi su ngeen ko moytuwul day ne nee na na leen wir ni lu ngeen jariñoo ci seen addina joojee ñu yàqal leen lu ëpp loolu ci seen diine. politiciens yi di xotti war maay Touba ban taxawaay la ci kilifa yi war a am ak ban taxawaay la ci taalibe yi war a am ak ban fit moo leen may ñuy ñëw Touba di xotti war moom la ci war a jiitu ci kilifa yi mooy ñu ni déet ndax it nag foo fekkee kuy def loo xam ne wér na li la dug njub du lislaam du ngor du diine nga ne ca wet ga ba noppi ni cell te mënoon a wax te waxoo. maa ngi jàpp ni bu ab yar dal boo muy tuut yow moomu da nga yëgaale yar ba kon kilifa yi nga xam ne ñoom ne yàlla sedde ñu yor baat te yilif dëkk bi nañ xam ni Serigne Touba dëkk dëkkam bii ni mu ci sonne am na xaq juñ ko ci ameel juñ ko ko war a delloo loole nag maa ngi jàpp ni ña war a jiitu ca sàmm mooy ñi yàlla dénk baat kon ñooña nañ jiitu ci maa ngi jégalu sëñ bi foofu day fu naqaree waxee. waaye mm-hmm. waaw waaw waaw nun taalibe yi moom. Mm-hmm. samaan wa moon war ci mbir yi li feek mbir la moo xam ne xam na ni lii leneen la xasuwu ci lu dul ndigal lu bàyyi ko suñu bon tabaraka wa taala jaar ci sallallahu alayhi wa jaar ci sëñ Tuubaa mi nga xamante ni mooy sunu wasila di kiñ doxale suñu diggante ak suñu borom tabaraka wa taala waaye nag foofu moom day fu xaw Euh, naqaree xuus lool waaye daal lu ci mën a xew nun suñ xasee xam ni suñ tubaa kim nu royloo diw la nañ fexe bay fexe xam kooko kumu suñ wóoru ni kii la nag nañ ca toppate dem bi ma toogee fii bi may ñibbi tiitaange laa jóge fii ma nekk man xam nga maa ngi jaay fii ci 28 bi man nag waaye borom daaru musi laa ku ma woo ci borom Touba rek maa ci mi ngi ci sama xol maa ci jiitu ndax borom daaru musi moo yóbbu leetar ba ndar yët ko sëñ Touba xam nga ma ñëw fii Touba gi sama njaboot jële ma Darou musu andi ma Touba kon xam nga ne lamay may Touba mo nek Darou musu ndax Darou musu ak Touba ben la ma wor ma joju ku koy set ku ne rek dang ko fekk ci man ni dem nak njaqare mo ñu jële fi ñu tok di jaay fi ñi ñibi kenn ku ne da nga daw fi la ñu bali fekk kon xam nga ne ñun wor ma ji ñun mom ño and nañ ci tax xam fi la ñu fekk man rafet nek dekk bi nga xam rafetu ci Touba rafetu ci moom te ànduñu ci tam ànduñu ci tay ànduñu ci ëllëg ah wa xanaa nag xanaa nag ñu ñu ñu xool bi sëñ Touba sañ ci Touba ni mu fi mu jaar rek ñu ñu ca loola rek lañ war a aw joxe dëkk bi war maam ca loolu rek lañ ànd mala ci laay yëngu ci laay dox. maanaam it bu lii amatee itam itam dañoo war a jóg wax ci ndax kat dëkk bi moom borom daf koo sañtoon ak sunna fo man di demé muy euro ba téné nak fépp fu man di dom loolu loolu la seigne Touba di dund dëkk bi it loolu la fi bëgg dëkk bi nak dëkk bu warma la dëkk bu samu la itam borom it ar nako ko waaw lépp lu fi waaye def itam na xam ni it jaaxaan di gaan waaye la rek lepp lo fi man di def itam sa kaw lay këppwaat rek ndax borom ar nako ba paré ndax kaaraange mu tawé su bo démé ci ma dugul faw sëy nii xam ni rek kaaraange dëkk bi la rek seigne Touba ar nako kon ñun taalibe nañ dolé xam li ñu doon ndax kët taalibe moom mooy ëpp solo ndax Sëñ Tuubaa bi biñ ko defee résidence ren ci njaarim gi 15 ans yi mu fi def yëpp defar taalibe yi maanaam xàmmeewul aw sant defar na njaay defar na jenn defar na jóob ñëpp teg na leen ci siraatul mustaqim ba koo si topp rek mën na laa teg ci yoonu siraatul mustaqim dëkk bi nag léegi moom dinaaw commercial bi daanaka day bëgg a ëpp doole fi mu toll nii daanaka ñun ñëpp dañoo jox wut si fi bari na fi ñoo xam sax li ñuy wax rek maanaam ger ku ko taararoon def ko ni ñuy def gerte gi genn wàll gi danañ jëlu waaw waaye sëñ bi taxu leen moom aduna mi rek moo leen fi ay mekkati loolu nag bu xasee ba ba bu xasee ba ëpp ëpp ay loxo itam am koom moom du doy ba mukk mukk mukk mukk mukk mukk la daloon fir la daloon firaw na rek ci digganteem ak Moussa xam nga ni firaw na moom yonent te kuy xool ci yonent yàlla Souleymane itam kuy xool ci yonent yàlla Souleymane war ngaa xam aduna ak nguur lum rëy rëy rëy rëy day jeex jàngat bi de li ma ci am mooy maanaam sëñ Tuubaa moom li wax moom ba ba aduna tukki mooy am te àdduna loo ci gisit li sëñ Tuubaa waxoon moom laa tastari dunya bi uxraya fata man baa anooran bi hiidu jaa faso yan damm lépp lu waay di def na nga na ëllëg ku jënd jaay sa àdduna ku jaay sa suba jënd sa su allëg ëllëg yowmal xiyaam moom bu soobee yàlla da nga ko rëcc te Tuubaa daa nekk dëkk boo xam ne war ma ji moom mooy liggéeyee fi jaamu yàlla sëñ Tuubaa moom li wax wax na ko ba ba àddunay ku ko toxalit yaay tux waaye moom li fi nekk moo fi nekk te li nga xam ne li ci gën am solo nag politiciens yi ngay gis ñuy dox kenn ku ne li ngay def sa intérêt dong ngay doxee waaye li ci am solo daal Sëñ Tuubaa moom li mu digle digle na ko lëggéey jaamu yàlla Tuubaa nag moom li fi am ñëpp xam nañ ko kaneen laneen foo boobe sa mbalit boo ko fi ndeet boo dikkee yaa koy yanwaat yóbbu fii moom li fi Sëñ Tuubaa def def na ko ba noppi kenn mënu fee yàq dara ndawi dëkk bi lañ ndawi dëkk bi moom tal na leneen lu dul nekk fii di ànd ak i politiciens ndawi dëkk bi ñu marché bii di liggéey ñii nga xam ne ñoom ñooy politiciens yi ñooy dem boobu seen mbalit ci àll ba dikk indi fii di politique ak wax ak dindi waaye ndawi dikki moom ñi ngi xëy di wut buñ xëyee luñ joxe seen kër gee lañ tal ñenn ngaa ngi daara ji ñenn ngaa ci biir marché bi di liggéey politique dafa yaatu bu la neexee nga dem ba mbambiloor sax ramasser say moom mbalit indi dikk boo dikkee ñu ne Touba Touba moom li fi nekkoon ba léegi mi ngi fi war may dëkk bi moom sëriñ si ñi ñi xam dara jox nañ gën a dëkk bi ñi xam dara jox nañ gën a dëkk bi waaw li leen ko may mooy jamono moom moo toll foo xam ne maanaam lu waay di def sa bopp mais loo fi gis rek ñu koy nettali ñaar ko sabab ñaar ka jógee ci àll ba ñëw sanc ak ki nga xam daa nekk ci dëkk bi ci xamul war may dëkk bi ñaar ñooñu nag buñu dajee coow dana bari parce que ki sanc toog ci xamul war may dëkk bi moom saa yu xëy day yaakaar ne lii muy def mooy dëkk ca fekk du dëgg te war may dëkk bi moom ñëpp xam nañ ne dëkk bi moom li fi sëñ Tuubaa def mu fi digle xam nañ ko suuf si dong yëmut ak jeneen suuf ci kaw suuf suufu dëkk bi damaa jëlee la di jëmmi dëkk bi mais suufu dëkk bi donc boo ko yoroon maanaam def ko sa poche bii de génn ci beneen dëkk soo ko sottee foofa day naat jëm kaw kon na kaneen ko ko bëgg a yemaleeg faneen da ngay def lu la neex rek kon yéen taxawaay la ci kilifa yi war a waaye mooy kilifa yi moom kenn ku ne da ngaa war kër ga nga nekk nga bay sa weewu tànk soo jugee nga wax say doom wax say ñi nga war a waxal ñëpp dellu si ba dëkk bi ci fam nekkoon moom dëkk la boo xamante ne ni euh, borom moog ba mu koy liggéey kenn jàppale wu ko ci maanaam du nañ ci ne kër la quoi parce que kër la goo xamante ne nii kenn nit moo ko moom te genn kàddu moo fi dox borom politique politique man politique bu ma politique lu ma taalibe Sëriñ Tuubaa lañ lépp loo xamante ne ni day warmal Tuubaa dañ ci war di dox moo moo ñu tax a mais pas ay politique wala dara moi je suis apolitique mosuma politique mais Touba moom lépp loo xamante ne daf ko jëme kanam wala lu koy luy luy dokk yokk war maam dañ ciy dox da ci wax ñi nga xamante ne ñu ngi def safaan bi ñoom ñoom ñoom la engagé ñoom ak borom dëkk bi la mais képp koo xamante ne ni bëgg lu baax wala bëgg nga bëgg nga bëgg nga ngërëm Sëriñ Tuubaa yaakaar naa di nga doxe ne ne nu dul yoon nu yooyu. waaw sama sëriñ yow en tant que jeune. mu mel ni gis nañ ne ñi nga xam ne ñooy perturber Touba di ci booleel ci bokkul ce sont les politiciens ñu gis ne suñ moroomi ndaw yi rek ñooy ànd ak ñoom mel ni duñuy ñuy taalibe ban soññe ngay jox ndaw ñi rawatina waa Touba bu ñu gën a bàyyi xel war ma dëkk bi. bon ndaw ñi moom ñoom ñoo war a xoolaat baax seen i taxawaay xoolaat baax seen avenir ëllëg. parce que jàpp naa ne bépp ndaw boo xamante ne ni bëgg lu baax di nga dem liggéey walla nga dem leneen mais pas ngay nekk yoo xamante ne ni amul la njariñ te du la jëme fenn loolu laa am ci eh, gis gis biñ ci am de mooy ñu gën a bàyyi xel li sëñ Tuubaa li taxal mu sañcoon dëkkam bi dara taxul mu sañc ko lu dul jaamu yàlla weetal yàlla ak dundal sunna في الفلام وعنني وش الإلهي مسكني توبا أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد كنا ورنا جنا جورجو جخ تكبي أرمى نك بنبجى لسن توبا نيان لبتي دك بتي جارين أكي خيول نودا ديك لوله فاو نيو mel ni sëñ Tuubaa bëgg ku dëkke ab dëkkam ci noonu waaw képp koo xam ne nii wóor na ne la ngay ñaan ak la nga bëgg amoo ko wala wóor na nga la nga bàyyiwaat xel ne eh, ni sëñ bi bëgg ci dëkkam ak nam bëgg ku ko dëkkee ci dëkkam dëkki ko nan bàyyi xel loolu bu baax a baax coowi àdduna yi ñu teg ko fële Tuubaa moom li koy doxal ak mooy jaamu yàlla dundal sunna yàlla sallallahu alayhi wa sallam nan nan yem ci jàng alquran ak xasida waaw leneen luy xeeti politique ñu bàyyi ko ñeneen te ñun li ñu sun borom digal muy jaamu yàlla Sëñ Tuubaa digal ñu ko la ñu sax ci dara mooy tax ñu dajeeg ngërëmul sëñ te ngërëmul sëñ bi buñ ko amee rek su aaj yëpp ay faju bi zaahiran wa baatin waaw ñun day loolu lépp war nañ cee bàyyi xel ndax ñun dëkk bi li sëñ bi wax rek ci lañu war a sukkandiku war ñoo sukkandiku si lenn du bokkut ak ndigalu sëñ ñi fi ñëw it nga xam ne mooy politiciens yi di ñu jaxasee di di di wàññi suñ gëm di wàññi suñ pas-pas war a moytu baax quoi ndax ñoom seen intérêt dañu daw ci ñun nag ndigalu sëñ mooy jariñ fii jëriñoo ëllëg kuñ ci gaañ wala kuñ ci xaañ ko yef leen ni wala ku ci jéggi loo xam ne bokkut ak ndigalu sëñ beet yaa yaakaar boo ca sëñ bi digale leer na liggéey jaam yàlla ñu sant moytu tooñ politique wax na politique bu dugg ci dëkk bi comme nee na politique bu dugg ci dëkk bi nag ñun ñi di jeunes yi ci dëkk bi liggéey nekk yoon si eh, di ci ndigalu Serigne Touba ñoo war a moytu yooyu baax politiciens amuñu benn njariñ lu di ñuy boole ak askan wi rek waaye ñu lañ topp ci sëñ bi di mu wax liggéey jaam yàlla euh, képp kuy murit rek wala képp kamante ne yow Touba ñor na la rek li xew fii démb ci Cissé Lo loolu war na la naxari parce tuba en fait dañ fi tere won politique xajna nit ñi dem ba légui bëgg fi dugalaat politique té loolu mën nañ leen xajal ñu ñëw politique mais politique seen mbir du yam wax dëgg yalla tay ko fi ne ñëwal politique bu suba ñu bolé ci ci bokul man dama part personnel man buma sañon dañuy interdit wat fi Touba ci dëkk bi politique parce que ben dëkk bi wut politique ñaar manam ba niñ fi politique bokut ak euh, li fi sëndi santané kon pour man képp kuy murit rek wala képp xamante ne Touba xaw na la ñor tuuti rek yow li fi xawoon démb war nga ko lu war nga ko naxarlu parce que lu toll ni 28 fii ak ni mu jegee jumaa ji ñu génn fi ay pistolet di tiire loolu lu ñu war a xoolaat la parce que wax dëgg yàlla Touba mérito wut loolu politiciens yi ñëw di def loolu foofu duñu dara waaw ñoom référendum laajut ku nekk di xeex di xuloo askan bi lañ jox kàddu nekkul mu mel ni ñooñu souvent dañuy gis ne jeunes yi la waaw ñu ci bëri Touba lañ dëkk. waaw ban message ngay man dama ne jeunes yi ñoom ay innocent lañ. parce que de ce fait ñu jël la bëgg la manipuler wala ñu lay fay benn 2000 pour nga yendu ci naaj bi loolu am na lu ko tane. wa pour man ku ci nek xam nga say droit xam nga lila yon may pour bu election joté nga dem def ko bi ci ñëk moy nga jël décision dem voter ji jël sa carte bi xamante ne yow ya ko mom nga dem bo duggé ci urne bi nga xol ku neex nga sanil ko lolu man dama de sama point de vue lolu la ci parce que man kenn suma yobu mitin kenn suma yu duggal ci car jox ma tiset fay ma 2000 wala quelque lu mantidon. Man don man suma def lolu kon ñi koy def man dama leen di condamner dama ne ñoñu xamuñu sen devoir wala xamuñu sen droit wala xamuñu li ñu def jërë ngeen jëf mbokk yi kon yéen a déggandoo wax ji yéen a gisandoo reportage bi mel ni kàddu yi yenn la gis-gis yi yenn la xalaat yenn la muy delloo li nga xam ne nii moo di Touba Worma ndax xam ngeen ne Serigne Touba Cheikhul Khadim bi mu sañcee dëkk bi mu nekk dëkk boo xamante ni suñ borom da ko koo tànnal fii dëkk bi nekk xam ngeen ne jamonoy wóor ya yi nga xam ne dañ doon xeex di xëccoo suuf Touba nekk na dëkk boo xamante ni dereti ceddo mos cee turu waaye Serigne Touba Cheikhul Khadim yàgg koo wër ba sëriñ tubaa teg ba suñ borom tegtal ko ko gannaaw ba mu bàyyee koo salaam mu sanc ko nag bàyyee ko fi dem liggéey liggéey bi nga xamante ni moo waral tey ñëpp am jàmm bi mu fi bàyyee ko itam ki ko fi jëkk wuutu di cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke ba kii fi nekk nii di Serigne Sidi Moukhtar Mbacke li Serigne Touba bëggoon ci dëkk bi loolu rek la ñuy soññe saanu su nekk kon nag bu ñu demee ba jamono bëgg a soppeeku wala bu ñu ba jamono jaxasoo ñun taalibe yi nan xam ne Serigne Touba Cheikhul Khadim mu bëgg ci dëkk bi mooy jaamu yàlla jàng alxuraan liggéey ak lépp loo xamante ni rek day taaral diine lu dul loolu Serigne Touba santaanew ko Serigne Sidi Muxtaar mi santaanew ko te yëpp kilifa yi nga xam ne ñu ngi déglu kili eh, ndigalu Serigne Sidi Muxtaar santaanuñu ko kon yaakaar naa ne ñun taalibe yi war nañoo amaat fulla ak fayda xam ñan la ñuy topp képp ku mu mën a doon ak nu mu mën a sant di la woo ci lu dul yàlla yonent bi ak Serigne bi yellut nga topp ko ndax Serigne Touba Cheikhul Khadim dafa am lu waxoon mag ña la waxoon mag ña mooy baa sama gannaaw doo leen jaamu ay xërëm mag ñi ne ko mbàkke kenn du la xam di jaamu xërëm sëriñ bi ne leen ndax xam ngeen lan mooy jaamu xërëm ñu ne ko mbàkke baaxe ñu ko mu ne dama xam ne dina dem ba sama gannaaw dina am ñuy wuyoo sama sant te duñu doxee samay jéego maanaam duñ doxee ni nga xam ne noonu laa doon doxee ñooñu képp ku leen topp rek yaa ngi jaamu xërëm mu ni gis nañ mu ngi gën a ngi bëgg a bëri ci dëkk bu tedd bii kon ñun nga xam ne ni dañuy woote ngir sëriñ Tuubaa ak ñi nga xam ne dañuy woote ngir ji seen jëmmi bopp ñu ngi dubsal nag li nga xam ne ni moo di élection yi kon ni ko mbokki taalibe yi waxee rek donte ay citoyen lan bu bis ba jotee na ku nekk dem fa nga xamante ni foofa ngay wotee xool la la doy muy waa wala déet nga wote ko ci jàmm ak salaam loolu daal yakar naa moo di ak taalibe ñu gën a delloo war ma nag dëkk bu tedd bii di Touba kon li mooy reportage bi nga xam ne ni moom la Mouride TV àndan ak yéen gannaaw bi nga xamante ni toobal nañ ci ay jamono yoo xamante ni coow li bëri na ci àdduna bi bay tàbbi ci Touba te Touba li taxan Serigne Touba sanc ko du lii kon muy politiciens yi di kilifa yi ñëpp bàyyi xel ne Touba dëkkub jàmbur la dëkkub Serigne la képp ku mën a doon dëkk si Touba yaa ngi bàyyi ko woon ci beneen dëkk ni ko mbokki taalibe waxee yaakaar yërmande sëñ Touba kon nag doo ñëw ci dëkkub Touba bi ñu xajal la Touba ngay def lenn loo xamante ni wu na ak war maay Touba loolu képp ku ko def ne jàppal ne yaa ngi war Serigne Touba yaa ngi war li nga xamante ni moo di eh, yoonu murit kon yaakaar naa ne wax jaa ngi noonu ñu ngi jéggul bu baax a baax di leen balu ak di leen bal ak wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhum وبالغوار bi dori